te foog nga amee foog daan am. Uh-huh. yow kañ làmb moom. ñaari xel daal nga faral kenn ki. waaw ci xel laa faral nit ki. Uh-huh. waaw mën nañ ko si ñàkk a foogee. Uh-huh. waaw mais xam nga sport moom ak nii nii nii. man mun naa ci reewante sama côté. ndax damay naan kenn fayoo ma dara ba di ma forcer dara. waaw toog sama kër jàpp si di seetaan di am ku ma faral wala ku waaye ak toog fële parce kii lay faral. te am ko muy faral yooyu laay bañ. waaw bu la woo téléphone kii la ma mooy amoo kii Modou ma dëkkal su booba. yow yaa Modou la yéen a ngi déggante sax. ah déedéet waaye tamit kii ñu dara. Uh-huh. mosuñu am problème mu dara. Ah, waaw kon kon nag waaw kon nag kenn Ama Baldé mu may njëkk a gis àdduna xam nga lu ma waroon wax. nee na Modou Lo bu exemple dégg ko gore ama wax waa Ama la rek. Mm-hmm. dara waroon di bay sax combat dara waroon di bay cinq millions ma ne ko lu tax nga wax loolu tamit loolu dara. Mm-hmm. Mm-hmm. amul dara sama gars rek mën na ko ci man sama yaay sama mag Papis ñëpp xam nañu lu bëri nga. macha allah. Mm-hmm. bëri ba ñëpp jóg taxaw soo duggee stade yàlla moo la may loolu noonu. moo mm-hmm. may ndaanaan yoo xamante ne ay bërikat lay mm-hmm. ku ci mel ni Balla Gaye numéro 2. champion yi noonu. Modou Lo. torop. Eumeu Sène. Tapha Tine. Lac de Guiers. ak bombardier su ma jumul ñooy VIP yi bas. Hmm. tey ñun ñëpp mën a limal est am na ndaanaan ndaanaan bërikat. seen biir. waaw. Hmm. am bagaay. <laughs> waaw dama. <laughs> tey ndaanaan foofu am na fa nga ne ma am bagaay. am bagaay la njaay. tey euh, te ñoom ñëpp kenn ku nekk seen bëri bokkul. wala hmm. gars yi di wax. bokkul te. fooy for Balla nga waxal moom. Balla Gaye ni muy ka. jàpp. Balla Gaye lu def ci xeex sax du moom fit rek moo fay dugal ci xeex fit moo ko fay dugal ragalul dóor xeex bu muy xeex loolu affaire fit la nii rek waaye na jàpp ci yow ba pare fu mu jàpp ci yow nag bëre dafa neex Modou ko mbëru yàlla la cest à ko may comme par exemple yàlla baax la ci benn mbir bi ngay jombalaate Modou Lo mu toll nii nii nii ak ñi ñee toll Modou Lo warul jaaxal nit ñi te damay jàpp ne Modou Lo Balla Gaye gisuma ko ñeme ci àdduna at mu toll noonu kooku mbëri ko lañ naan mbëru yàlla kii mbëru yàlla la waaw lu ne lay def ci làmb fu ne mun na faa jaar est-ce que naa la benn affaire ban mbër nga gis Sénégal mbër buy bëri di door bëri door lañ wax de waaye gan mbër ngay gis muy def ay clé ba pare di dooraale ci biir clé yi te mu ngi def ay clé ba pare di door moom la ko koy def Sénégal. amul benn mbir bu koy def. Mm-hmm. mbéy dañuy jàpp taxaw di door. Mm-hmm. wala nga taxaw di sànni. Mm-hmm. waaye moo day dugg fu ne ko suñuy dooraale ku mu jàpp door def. donc su ma koy def Sénégal de. Tapha ah, moom bëre bi xaw a yéex tuuti nag. dafa yéex dafa day benn benn. waaye neexul daan waaye day benn benn waaw. xam naa nag mun na am doon fooram moom mënu ñàkk foor genre ponkal yooyu noonu mun na ñaari keresaat la lay yóbbu la am dana mun na ci mun na ci ubbi la am loolu laa dëgg paay di wax quoi ni ma ponkal dëgg ñaari fem di koy ubbi loolu la am ci yoon ndax doole ji mu yor gaa diñ ko yor moog bu marjee yam ci loolu Eumeu Sène saasaay la foo qualifié ñee qualifié fa Eumeu Sène bandi la day bëre bëre nekkul Eumeu day bëre bi bëre dara nekkul moo gën a nakari ak Sénégal bëre. moo gën a. nakari Sénégal mbër bu tax ngeen Lac la gën a nakari bëre. ndax la muy bëre loo ko may mu jël te doo ko dugg du la may dara. Mm-hmm. dara du la ko may si nga laal. Mm-hmm. te loo ko may mu jël. Lac de Guiers Sénégal bu mu daj moo gën a nakari bëre. Mm-hmm. moo gën a nakaree daan. mayu buntu. te bu see ci buntu exploité ko dem mm, jar sa buntu génn ci palanteer ba de. nga toog di xoole nii. <laughs> Gris Bordeaux dóor la gën a mun. non door la gën a mun si cadre door ak bëre. non dóor la gën a mun nag wax dëgg na yàlla waaw dóor moom senegal moom Sénégal moom amul ko dàkk dóorante fii. waaw man dóoram laa gën a gis ak bëre ji. ok mhm. moom la jéeg ñu mu toll moom jarul sama mun bëre. Mhm. dóor yi la jëloon te mun bëre. <laughs> moom la jéeg. Mhm. waru am kele ci làmb ci yoon jàpp la rek. wëñ rek yóbbu ñooñu ñëpp man la ñu wax est-ce que am na kay am na ci seen biir kañ. kan moo ci super ah, lim daal ñoo ngi am pagaay. ñoom dañuy nañ trois mot nañ quatre ci biir. amul li ngay wax dangay wax dëgg sax nit mere la ci. Ah, ñi nga lim am na ñoo xamante ni dañoo mënuñu bëree doole kese lañ am waaye doo wax ay tur. Hmm. waaye ku nekk mën naa lii lii war na ko mën a def ci làmb. waaye ñi nga lim nii hmm. am na ñoo xam ne dara mënuñ ko ci làmb mënuñ sax génne sept kele sax mënuñ ko génne. Hmm. te ba dëgg war na di génne ay quinze vingt kele ci yoon kon ñooñu am na ay maire. foofu foofu ah déedéet. boo ko defee rek indi coow Sénégal de. ñu léegi gars yi corona la léegi de. <laughs> ah mbir yi. koo xamante ne tey. Hmm. Ah, papi général mi ngi gis bëreem euh, ci moom. ñooñu ñooñu xam nga par exemple su ma doon xool ci man tey jii. mën naa leen Modou Lo par exemple. parce que moom laa bëreel contact contact ay at i at. Mhm. may gis moom ay affaire yu garaaw. Mhm. kii moo xarañ kii moo xarañ man ak moom la woon contact boobu. boo xamee loo bëgg ñëw nii kii moo xarañ. Mm-hmm. bu ma nag moom la woon kon takk. si. Mm-hmm. muy def dara lu dara namul. Mm-hmm. lamb. dafa garaaw. gars yi ne deewul. lu ne rek dafa am loo xamante ne day wàññeeku rek liggéey moom la am foo xamante ne day am nga def nii ci kaw yenn saa yi mu wàcc. lamb mu mën a dee Sénégal mu mm. da xool lamb ji nu mu mel. Mm. ak bëri samba bi nu mu mel. Mm. instant bëri samba loo ci doon gis. 3 millions ñu ñu dem ay 10 ci bëri samba. te lamb bugg a dee mënul dee te lépp lamb la. ak CNG ñëpp wax dëggan ne yàlla wax dëgg. Mm-hmm. nekkatu lu ñuy forcer foofu noonu mais pour man. Mm-hmm. ah bu doon sama place la dama naan CNG. Mm-hmm. dimbale arbitre yi dimbale. no tax par exemple ku ngay ngay àndal. te yaa ko bëgg est-ce am na par exemple bu doon comme CNG sama groupe la woon man nii. man maa yor groupe CNG daal. arbitre yi comme lu ñu lu ma dégg ñu wax na loolu la ñuy fayee ko. bii laaj su ma mënul jël xaalisu CNG sax. te am naa yéen yàlla jox na yenn moyens may génn sama xaalis di leen di yokkal bokk dimbale leen. parce que jar nañ ko. jar nañ ko peut-être tamit dañoo am njaboot. soo na si mos nga dem foofu làmb bu toj. làmb toj mos nga faa dem. bu toj. Mhm. soo faa dem ne dafa bëri gis nga loolu xeex la ci làmb. mbaa bokkul ak làmb bu toj gaañ waaye ñu dox sax ci kaw deret boobu. doorante jaase fii jamante waaw bu fekkee at dem naa sum. astafula kawoon kawoon ànd ak nijaw si tamit jibi ndong am benn maara bu ñu fa daboon. fekk fa aada buy doon woo ci Xadi Joof kër googu noonu. benn at bu tudd Ali. keroog sama ko naan man ko yow ñoo de. papa yi la tudd man man ko yow bu daan bokk tur am naa sant lañu bokk rek. Habib mhm. boobu dafa gumba. mooy keroog di Maama Lamine Sarr di jëlee. Eh, chef de l'État. Maama Lamine Sarr. Mhm. chef la gumba be arbitre la wax de. foofu la ba tey gisatul. dañ ko kii wala. ay bagages yi làmb ji rek lay doon rek. Oh. billaahi wala tabax gis ni du ma deux fois trois fois. maara benn maara lañ fa amoon. Mhm. waaw ni mën a nii dañ doon toog di waxtaan lu la gis sax ngeen di waxtaanee rek mu a expliquer ne combat bi combat eh, chef de l'état bi Mame Lamine jël xaw ma Fatick la woon est-ce que woon Fatick la woon sax nee na ci laa gumbay ba léegi te arbitre la woon nga xool la tamit xool risque boobu la est-ce que est noonu ba léegi ñoo ngi dem ci arbitre boobu di ko naan am teel lii mën a ko mënatul liggéey est-ce que moo ngi dem di yelwaani tamit CNG daa dimbali ñii rek du dara. comme mm-hmm. li fi lépp lañ fiy bàyyi. Mm-hmm. arbitre lañu. arbitre mi 500 ma 2500 journée wala nangam. Ah, rek te yàlla taw rek gisee ñu bari na 25 ans pouvoir c'est trop doy na yow tey euh, sa gisee Alioune Sarr parce que gis mhm. mu dem wala mu wala te beneen mooy est tey bu demee euh, gén euh, papier général gis ko ko remplacé. wax dëgg ne yaa de soo Alioune Sarr génnoon fii. man maa mun naa xool Manga 2. waaw. am na fula gi am na caractère gi xam na làmb. Mhm. waaye comme CNG am na ñu xam làmb rek ah ci li ma foog. waaw ñu ñëpp mun nañ dawal ba ci kanam ak kanam ah Alioune Sall bu ko nee tamit yàgg naa fi xaaral ma may sànni sama kii mu toog parce que day am ci àdduna yàgg naa ci place bii de xaaral ma jox nit bu toog comme ñaari place moom tamit mu ngi liggéey feneen waaw. mu may nit toog keneen toog ñu xoolaat kooku waaye na sax nga bëgg a dindi nag indiwaat toog keneen keneen nga ñëw def lu gën a pire lu ko alkee doon def de waaw ana soxna wax dëgg amul moom ah man amul mu ko wax de defuma dara waxuma dara laa ma jàng nii waaw. Papi nag loolu woon ko sama décision nag bu ma ko daanee. Mm-hmm. damaa ba leen làmb bàyyi naa ko def nii. waa tur bi yëpp yóbbu na ma déedéet mu nekk nii nii nii waaw. ma dem ba fajuwaat normal. temps rek commencé waat naa dalaat tuuti. waaw. man. Mhm. mun na am de waaye dina metti de. Mhm. Mhm. pare nga pour may waaw su ma kenn ñëwee kañ pour ñoom la waaye xaw ma na dinañ am sens. waaw. daf koy répété. day ñëw ci yow noonu mm-hmm. ci man wala mooy seetaan clip. Mm-hmm. nga gis benn action action mm-hmm. dama ñëw ci stade stade boobu noonu noonu. ñëw gars xool leen ci man rek ñu dem. bëri doo def naa ko am pagaay. loolu du répété. Papis pour mu ñëw làmb dañ ko doon fay. waaw pour mu ñëw làmb dañ ko doon fay. am bëgg wala ay nit woo ma Kaolack dem naa Korité village jékki-jékki waa Kaolack woo ma nee nañ nit ñi nee nañ duñ dugg ci làmb ji te ñëw ma ne am seen poilu bi kañ la ma suba la ah ma ne ko baax na ñoo ma fay ñu wax ma ma takk ngemb sama kër sër laa jël sama maam ne ma yow da nga tàggoo sa maaraay nii ak nii ma ne ko noo garaaw yow ñaanal ma ne yaay maa ngi dem te ñëw. dañ may fay mais damaa bëgg a bëriwaale keroog la ma tampoon ndaw di naan daan final po premier tour. ma dem final ñu jox ma sama ne ma duñ ma fayati ndax am naa xaalis bu pare ma ne leen garaawul jël leen. ay ginnaaw raaw yi Dakar yi. Dakar mu ngi fi jëmee bu ndawee bu ndaw rek mu ñëw baaxu dem ñi ay cent mille francs yi ah. garaawul nga demee yow baasu Gàmbi Sokone. moo ne saa fecc nag daa neex itam nag ah. paa yar seen mbaani sa day fi la fi la finaale. est-ce may sax benn est-ce que doo ñu may sax benn. non boo boo taaloon kañ musique wala wala benn saw na naaw. <laughs> boobu ñuy tàggatoo. maa wax léegi lamp ji hmm, ñoo ci bari nag. bari nañ ci de. Balla Gaye demul des de. nag dëgg yër ngi noonu Jaatu Faala ngi nii. Koungheul sangi ne. gars yi ñoom te booba jëndee la dandul. waaye dañoo garaaw de. mu trop. mais am na ci gën a mystique. waa jekkoonte rek lay doon bëgg di doon seen mbir. ba tax moo tax doo mun a gis ku gën a. Mhm. waaw te mystique naa benn affaire de du takk yu bari de. di takk takk yu bari nii nii moom mystique. ban mbër moo mës a bëre Pape Général dem ba benn instant gis ni combat bi tey mbër mi. nangu nañ ko ci biir géew bi mbër bu pare woon dem ba ci biir géew bi ñu nangu ko victoire bi. ci combat ci combat ci combat waaw. yi est-ce que dinaa loolu sax soxna si nag ñenn stade yi ma faral li may gent làmb fi bari na de. waaw gént nii ba ay nit ñëpp par exemple làmb ji am nii tey la làmb ji tey la làmb ji am ñu may woote woon dañuy bëri may ma damay fay sama kool bi. ndax la non ñu may woote ñu bëri kan mooy daan kan mooy daan. waaw léegi damay bañ nag wax ñu foog ne ko dama dem ci moom jox ko dara waaye ñu ko defal dara te fekkee da nga ko gis si guddi. yow da nga koy gis. waaw lu may gis si laamu bëri na trop wax dëgg na yàlla. papi général ñoo léegi day ñaanal laa de. ñaanal laa de ñaanal ma kenn de. mais papi général maaraal. non am na am na yoo xam ne da nga koy mënal sa bopp. ok waaw am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla mën na ko sa bopp te mosuma ko jox ni mën ma déedéet xanaa déggoo kër bu ñu sàcc sama scooter bi. mais yow maaraan sama scooter bi lañ sàccoon temps yii passé. ko. force cinq jours la ñu ñu indiwaat ko ñu ko ñu ko ñu <laughs> man julit laa. <laughs> mun naa yeewu def ay sangat nii ay sunguf nii rek waaye dama seet de. mais mun naa ah, faj. yam na faj yu moom. kon bas loolu la. Hmm? ah mën naa yéene faj yi mën naa yéene sama demee ba bàyyi làmb hmm. def def ah, dem ma demoon ba ma liggéey sama usine yaay bi de. mais doo de la Petite Côte. <laughs> jaay ay merguez ay vin ay jambon yooyu. doo ñaanal gaay. ñaan waa ñu am bagaay mais am na ñoo xam ne dañuy ñëw. amul problème amul kañ problème bi non du léegi man defuma ko sax liggéey. waaw mais loolu moom moo tax nga ne am na lu ma ci jàng aussi. jàng naa ci ñoom jabi tamit ku doon naa fa toog ak maara fanaan ak ñoom ñu lay wax ngay dem ba ay Guinée Bissau ay Casamance ay Gambie yi di mm. sama ko sëriñ lekk nag war naa am dara mm. ah, ci lekk mm. ah sëriñ ñi moo tax man sax woykat yi ñi woy ci la man ñi ñëpp samay gaan lañu woon ah. waaye faya faya mboj jibi moo taxoon ma gën koo xam ak aada ak xadi ngoom mm-hmm. waaye ndey faatu moom ñoom damaa yàgg ak ñoom. boobu ñoom yaa ngi nii xale yu ndaw la ñu. waaw mais des fois mooy génération Khady Diouf Khady Diouf ñu mu nii bu seen wet. teg ko nii. waaw des fois dama jëli moom wax dëgg ko muñ. waaw. Ah, moom jàmbaar la de ak doomam ji mais seeni ñing moom ak njëkk moom a gën a ci làmb nag seeni seeni ñing mooy lu mbër eh, ku kuy tëkkal yekk nii kooku moom a njëkk ci làmb wax na yàlla mais Bam nga ma ko xamee ñoo joor keroog bu mu ñëwee tamit ak estilam bi def maa jombal parce def groupe ñii di jaar ñii jaar ñii ak mbalax googu noonu waaye bu dee mbalax ci seen ngi laa ko nekk a feccee hmm, kooku moom comme lay jàpp moom lay jàpp ah. l'émission tire à ma lay kontaanee waat bu baax ndax dama la woo. sa kàddu te loolu instant bi ak yi hmm. xam nga nga def loolu yëpp di la bu baax a baax hmm. naan dañ laa yàgg suivre dira la seetaan. Mm-hmm. sa bëre surtout nag man moom wax dëgg yàlla li ma doon daaneel ci yow mooy damay yàkkamti nga ñëw stade ba ma gis équipe générale hmm. wax dëgg yàlla mu nekk tamit nga nekk borom mooy estimé te xam naa tamit peut-être euh, amour boobu noonu moo tax affaire bi hmm. gaaw quoi di la remercier bu baax a baax di la ñaanal yàlla nga ñëwaat ci làmb ji ñun bokk soxla nañ la parce que bëgg naam fekke wuñu li nga xam te mooy sa commencement ah. mais bëgg nañoo tamit jeexale ak yow li nga xam te ne moom mooy sa hmm. parce que tamit nit ku baax nga naan la kontaan nañ ci yow bu baax a baax waa Wassare Lamb kontaan nañ ci yow Basirou mii. kontaan nañ mhm. rek Basirou mii moom xam naa sama mbokk séeréer la moom yow moom sama doomu ndey nga. waaw ñoo fa ñu ñëpp wasaare moom ñu ngi koy ñaar rek. mu gën a avancé ñu nuyu ñëpp nag di sant ñëpp Sénégal yëpp jàmm ji fi am gaa yi jàmm ji yokku feebar gi tamit yàlla dimbali ñu ci mu dëñ bi ñu am jàmm ku nekk yore ak activité naan laa waa laa mujj nag ñu xaar ma tuuti ci kanam waaw man maa néew ni may bàyyi. man maa bàyyitul nag. waaw ah, léegi après ma de ñama na la. ah duñ play musique bi tuuti. Ah. bas joxoon téléphone. Eh, <laughs> ma ne la. bas agent sama mag bu góor sama waa kër doom yi nekk fii ñoom Lora bu ndaw Eliane Béjo Françoise Ousmane bëgg ah. ñi may àndal làmb yëpp tamit. Mm. merci. Mm. alors Assane ok. <laughs> Oh, waaw Bassirou ah ni ñu ko gisee rek ah, muy papi général mu nekk koo xamante ne toujours toujours égal à lui-même ndax waxtaan nañ ak ci moom ci lamb côté mystique lépp ba pare defal nañ fi benn bonus quoi mais bonus bi dafa gàtt di ko wax rek ndeysaan lii moo tax ma bëgg ko Bassirou Diouf ni ma ko waxee rek à chaque fois yow dina remercier a baax ndax su ma nee laa ëcc nga ne ëcc di béggewaat nag ñi nga ne mooy euh, euh, suma xarit ñi nga ne ñoo nekk ñëpp ñëpp ñëpp national international ñëpp surtout nag les internautes di leen bëgg bu baax a baax a baax naan leen wasaare lamb wasaare TV nii rek la def lépp loo leen bëgg dañ ciy dox mais Bassirou damay bëgg baax koo xamante ne suma xarit la suma lépp la muy Baara Signane bu Papa euh, borom la le 22 avril maa ngi koy bëggee di ko remercier naan ko yaa ngi ciy jàpp bu baax a baax yow sama doomu ndey nga jàppal ni bëgg bu ma bëgg bëgg naa la ko fukk jàpp na ci nag bu baax a baax waaye li ma ko wax rek nee naa ah, li ci kanam rawali bët rawali gët dina la ko olof di waxee ne ko dangay baax mais li nga xam ne nag incha allah ci kàttanu yàlla mag yow suñu relation am na commencement di bëgg waat lan li nga xam te ñoom ñooy waa ngoonaru làmb di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo asal bu armée di ko bëggee waat bu baax a baax gis nañ ni ñu waat képp koo xam te rek am nga contentement si di leen wax rek commencé bu ñu dañuy foog nee naa leen après di ngeen comprendre te am na yeneen émission yu bees tàkk yoo xam ni waa Wassare ñu koy indi nee naa leen nag wax feeñ ndax dañuy bañ a piraat dañuy defaat nii rek pour seetwaat beneen kii xam te ni beneen ndaanaan ndax su suñu suñu yaram moo tàng dañuy dem léegi-léegi seetiwaat ndaanaan boo xam te ne macha allah gars yi dañ koy gis léegi léegi léegi léegi du yàgg acca bas bégewaat la cant ak ngërëm ñaan na la ba ci